ñu ngi lay fay waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur waaw ñu ngi sant ñëpp fépp fan fan Sathiès nekk rek ñu lay sant di la gërëm xam nga di la nuyu di la jox sa wàccuwaay tamit di sant assistant bi toog fii sama gars yi xam nga Cheikh Zo Dame xam nga Modou Seen Ndiaye xam nga Serif Abdou ci ginnaaw ak booy maa ngi sant ñëpp daal moom li may dinaa juum xam nga di sant koñ bi waa koñ bi nag aw ma seen fay gisaan ma yaatale xam nga def ma seen doom def ma seen lépp xam nga li jégalu nag dëkkandoo yëpp ndax ko ne xam ne làmb daa bëri coow waaw ñu ngi jégalu biri bi yëg xam nga di jégaluwaat ñëpp daal di nuyu waa ñëpp. waaw loolu boo gisee xam nga rek nekk ci làmb sax ñun làmb rek la am amul leneen ñu dul làmb comme yaakaar naa dimanche sax bu ma joxoon làmb damay dem bëri jiwaat waaw waaw comme li Massi Mbargane di wax rek mbër bu ndaw du préparé day pare maanaam fu mbaa ma fekk ma bëri ko waaw waaw loolu rek xaw naa métti moom na trop waaw jàppale moom des na des na mais jàmbaar moom waaw ca waaru rek lay nekk ñu fekk ko fa ndimbal da ngay fekk loxoy borom maanaam du ma xaar kenn damay dem rek ku ma fekk ñu ànd dem yow mais maanaam sama yoon damay dem rek. Ah. non adversaire bi ay dara bu yof la waaw bi bi daan ñang baalo moom la woon mais daa dem mu waa yof ne nga dama diis léegi mataar woo ma wax ma proposé ma la joor bul ñaa ko rab léegi ma jël rek waaw manoom làmb moom soraali ma ci dara làmb laa fi nekkal keneen nangu billaahi waaw Sa Thiès moom làmb yaakaar naa ko ma ci xamul nag moom amut manoom ba ma nekkee Sa ba léegi làmb rek laa xam làmb rek laay def defuma leneen lu làmb amul fu mu ma xamewul Pikine Parcelles Guédiawaye fépp fooy dugg naa xam Thiès ñu ko amut cest da nek xalé bu xalé bu eus nak mom teel a ës di wër di bëri ay xali xaj rek ba parcelle foofu bëgg na fay ñëw sax amna mbeur bo xamanteni parcel dama ni parcelle damaa daan ñëpp koñam xaalis xaalis ñëpp muy talfa ñëpp la daan bayuma kenn te moom fi nii moom daa war ñu bëri mi ni ñaan ñaar ñu naan koy def amul combat te man maa ngi nii ñaari combat lam 6 combat 6 victoire mam 7 combat 6 victoire ben defet kon da wara a ñëw ñu bëri waaw ceddo bi ngay waxal doomu xam bi nga naan gémóor bi Talfa man xam na ni moom maa ku dul Talfa sax maa ko mën franc laa doon xool mais gaa dama ni dama laal Talfa rek garaawul mais ji franc laa jëmoon billaay walaay dagg jéng yi dem wuri franc non man moom man damaa xam ne mënu ma am adversaire bu yomb man tey laa nga xamal sama bopp waaw kenn di ma ko wax mënu maa bëree ku yomb adversaire bu métti rek laay bëreel mais moo tax ma bëgg na Talfa moom génn comme neen gémóor la te moom Pokola la bëggoon Pokola am na adversaire na ñooñu bëre. waaw loolu maa ngi ciy sant waa benn baraag nag loolu moom liggéey waa benn baraag la ku ci mel ni magu xam nga bàyyi daal wàllum soow moom loolu ñoom ñoo ko yor mais loolu moom dafa nekk man naturel quoi du dara nag waaw loolu daa nekk man naturel. waaw loolu tamit. waaw comme abi passé moom noonu la mënoon demee noonu rek la mënoon demee gis nga dafa am ci stade bi maa def lépp maa daanu waaw neexal stade bi tamit ndax mën naa am sax bu ma daanaan leneen am ca billaahi mais xam naa loolu loolu la yàlla dogal jour boobu noonu mais comme ni ma wax rek armée moo ma daan mais man dama fiy bàyyi dem waaw man loolu damaa leer nañ moo ma daan mais man dama fiy bàyyi dem sama yoon nga xam naa adversaire yi may jël du leen jël xalaatu ko sax xalaatul loolu billaahi Talfa moo war a ñëw moo war a rek rek lii moom benn booy nag sama xam naa samay mu ñëwul ñëwul ma Talfa fu ma ko fekk stade dina bëri mbedd bi fu ma ko fekk dina bëri moom xam na loolu sax te xam na saa gees bu baax sax Talfa xam na saa bu baax baax a baax baax bi ma ko daanee bi ma daanee seen waa ko ñëpp moom lañ jëli ji woon mais comme mu mujjul am daa mujj yàqu mujjul mu bëri waaw moom. ma fépp laa indi bëri ba 19 dem naa ba unité 19 ki ma mujj a bëri unité 19 laa ko daanee ko ñu fa waasaw. ñu leen Papa Sow na génn barki Serigne Touba Mbacke. ah ñu lay fay. dañ si jàmm baax kay. Ah, waaw noonu la demee waaw. Ah. non xam nga rek sant yàlla rek. waaw sant yàlla bu wér sax. parce que ñun moom am ñu kenn ku dul Sa Thiès billaahi parce que moom am jëlee combat bi daf ma woon ne ma zo ne ma jël naa combat ma ne ko mbër ñoo lañ fi nekkal te ñun làmb lañ fi nekkal aussi c'est comme nu mu waxoon sànq mas margaan lu wax mbër bu ndaw du pare day pare du préparé day pare yaa ngi comprendre ñun moom rek lañ fi nekkal est-ce que yaa ngi comprendre demee nag wax talfa dañ koy jël talfa dañ koy jël gem bu nekk gem nekk si ginnaawam bañ bañ a nelaw bañ nelaw ba nelaw fu dara newul ma xaar xaa doo xool talfa dañ koy jël man bañ nag ba mu daane dama ne ko mbër mu ne wa gémar bi laa soxla moom xam na loolu ba mu daanee taj dama ne ko mbër mu ne waa soxla ma keneen gémar bi laa soxla instant bi moom rawuñ dara si laam ñun ñu ak sept combat yaa am six victoire moom mu six la tok six combat kon kooku instant bi la ñu rawee si def si arène lu deful yoo xanaa gisoo arène kay dimanche ñu def waaw noonu la deme ñu yoole ñu foofu kese fi ba stade dañ koy yoole tepp tali binak, nag wala di préparé déggoo lu ma wax stade bi déggoo ma wax tali dañ ko tepp dugal suñu poos xaa doo xool barki Alxuraan stade bi balaa saison tej tëj bëgg nañoo amaat yeneen combat yenen yenen yeneen yeneen avance yu bëri bu ñu ñëwoon tey tey ñu jël Talfa na na wax na génn wax ñun ragaluñ loolu barki Alxuraan waaw di sant mbër bu baax yok yokk entraînement yi kese ne ngeen tànk yi ne ngeen yaram bi dara du xew waaw di sant nag sama mag yi jàpp nañu si combat bu baax ñoom Toldo ñoom Adama ñoom Seydou maa leen sant bu baax parce que jàpp nañu si combat bi man mu lay waxee rek dañuy génn ñoom ñu ngi nekk ba Italie ñu nekk Espagne waaw parce que mbër moom sama waay la làmb boolewuñu loolu yàgg na billaa walaay moo tax bu amee làmb damay waay bu ma nekkoon Europe sax damay dagg bee ñëw si làmb ji barke alxuraani kenn parce que moom moo ma ko jaral billaa walaay làmb moom dama siy taq ripp billaahi di sant supporter yi aussi tamit di sant waa koñ bi ñëpp sax waa boulangerie bi waaw jàpp nañ si combat bi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant waaw yàlla yàlla xeeb dolli rek. maa ngi lay fay maa baax baax alhamdulilah waaw kon xam ne moom xam ne làmb dafa metti xam mbër mu ndaw moom. amul xaalis ka jàppale bi moom demewul noonu dëgg la nag ñoo ngi sant yàlla bu baax saa moom sama doom ndere sama doom ko yàgg noonu ànd di ko ñaana jàmm rek fan na gudd ñaanal ko roi des arènes mu jël ko incha allah rabbi ka dañ koy jëli sax incha allah ka saa la du fii ngeen ko xamee mais saa defuñ dara ci arène sax mbapat la gën a toj arène def fi dara mbapat la gën a toj booy bandi bandi fépp daan na leen ay ñoom Jackson ñii ñëpp fekk na leen géejawaay dafa leen bagage maa la wax loolu ay Baye Mandiaye comme Talfa sax dañ ko mais Talfa sax xam naa tàppale du ñu jël bu neexee lis njaago ñoom ñëpp mën nañoo ñun ñu bëri maa la wax lool bu saf sap bu metti ñun Kajoor Kajoor lan de duñ tàppet Kajoor lan dëkk waaw di sant ñëpp nag di sant waa koñ bu baax a baax seen fay xam nga laamu dafa metti di sant suñu waa gaale bi ni bi muy ngemboo laa moom bu ko dee dafa metti trop da tey préparation bi ak dérèglement yi dafa metti di sant Aïssa mais bu baax a baax mooy bàjjenu koñ bi Aïssa mooy bàjjenu koñ bi xam nga waaw waaw gis nga mooy defal lépp ci koñ bi saa fi lay defee lépp fi lay lekkee fi lay defee lépp moo ko jëndal cere moo ko jëndal fonde mi naan pour nekk ci entraînement yi mën a jël combat bu diis gan mooy loolu noonu waaw di wax saa mu yokk entraînement yi rek toog ci tànk yi yàlla baax na làmba suñ kanam waaw ndenge yaram waaw matu ah bu mënumaa béyee sam nag moom ñu jàpp ci làmb yi nag gars yi dañ cee jàpp dañ cee jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax waaw yow daal dëkkoo kenn ci làmb ji góor a soog ak maam Seex Ndaama bi koy sotti galaaj ñoom ñëpp xam nañu baax a baax a baax a baax waaw moom foofu sax ëppalee mu fa moom parcelle googu mu dëkk ëppalee mu fa ay supporters hmm. na génn ñu ñu bëree bon talfaa maa ëpp ëpp ma parcelle gi mu dëkk ay Tadu moom te du géema du tus te amul doole sax moom ndax daa jàll kon mu koy mënul jàll di am doole pour muy leer waaw maa ngi sant xamoon boulangerie bi paa bi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Baye Cheikh amu fayam xam nga di sant sëñ Mbacke bu baax a baax jàpp na ci làmb bu baax a baax regroupement yi fi ñëw yëpp moo fi def xam nga di sant naar bu baax a baax di sant Kang xam nga di sant waa benn baraag bi yëpp Malika Kër Massar amuma seen fay xam nga waa di sant Mbayaari bu baax a baax a baax maa ngi sant Mooget bu Géejawaay xam nga di sant Samsa di sant Muntaga bu baax a baax a baax di sant Ndongo bu Géejawaay aw mu fayam ñaar xarañ loo borom Medina ak moomoo doomu yaayam gis naa keneen jàppale ci làmb ji maa leen sant bu baax a baax a baax xam nga amoo seen fay di dem ba nag di sant sama papa bu baax a baax jàpp na ji làmb ji xam nga di sant Pinon Pino international maa ngi koy sant bu baax a baax amoo fayam di sant Youssou bu baax xam nga dem ba sant Talla Seck bu baax sant Mor Ndiaye xam nga di sant Tollo Seydou kant Adama aw ma seen fay maa ngi leen sant bu baax a baax a baax waa diaspora bi yëpp ma limee dinaa juum xam nga aw seen fay di dem ba Guédiawaye nag di sant Sidi xam nga kër yaa ummi cosmétique xam nga maa ngi koy sant bu baax a baax Sidi Baara aw ma fayam xaalis bu bëri la ma yónnee. billaay wallaay def ma def ko ci làmb ji xam nga di sanal sama booy yi nag bu baax a baax ñi amoo seen fay Cheikh mii damaa dem ba yërëm ko sax kii nii ci làmb ji guddeeg bëccëg mu ñëw xam nga day ñëw sax taxaw di ma xool xam nga ma xam ne kii yéen lay demee aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax a baax di sant beneen Cheikh bi xam nga di sant Cheikh Ndiaye kii moom mënu ma wax ci moom ñëpp xam na ni mu demee xam nga di santu Zoo ndax moom yaakaar naa ne maa ko dugal ci làmb Zoo maa tax maa njëkk tax mu dem esat aw ma fayam di sant daam mais daam boos aw ma fayam moom tamit billaay wallaay talaay xam nga di sant Modou sama booy la moom tamit ñoom ñëpp maa leen tax ñu bëgg làmb xam nga aw ma seen fay di sant ndigal Fall nag mooy ki war na ñëw émission bi da ñëwul moo yor lépp moo yor kàddu gi xam nga moom mooy diriger ñun ñu ne ci ginnaawam di sant soxo be di sant soxo bébé bu baax jëlal ma ko mi ngi ne le ci jox añ di ma jox reer barke alxuraanu karim mooy sama doole aw fayam xam nga sa sanaan waa koñ bi daal bu baax baax a baax su ma limee daal dinaa juum di wax nag monsieur le maire monsieur le maire ñun ay kayor kayor lañu monsieur le maire Adama Fall sama dëkk ñun ay kayor kayor lañu war ñoo génn kayor xam nga di représenté drapeau kayor ñu ni seetaan monsieur le bu ñu bu ñu bëree war naa mën a jënd ñaari bloc jox na ko ni ñëw ndax kayor waaw ñun amul lu kayor te Garga 2 mi ngi nii war a jëm ci kalaaf da nga ko war a jox xaalis bu bëri mu bëri Garga 2 sama mag la ndax ñoo bokk Kajoor maa ak moom waaw monsieur le maire message boobu maa maa la koy lancé Garga 2 jàppale ko ndax karaaf lay bëre te karaaf daa metti nga jàppale ko bu baax a baax a baax waaw di santaat ñëpp nag amoo seen fay di sant ñëpp ñëpp waaw di sant diggante ngaay ba ndànd bëdd jeng bëdd forage njaay njaay bumi xam nga di sant gëti pëleen palmeew ndànd faal bëdd jeng xam nga kel bàyyiwuma kenn daal suma ma limee daal dinaa juum di sant bot waa guy meew waa Serif waa Serif ka maa ngi sant ñëpp di sant waa sum xam nga waa mbaaxeen waa ngembe jeng ma seen fay di sant waa waa cëween maa ngi sant ñëpp waaw di la di la jaajëfal yow moto bu baax a baax ndax yow saa ma la soxlaa rek nga déplacé ñëw xam nga te loolu tamit yombul waaw maa ngi lay jaajëfal di ñaan yàlla dem ba mu nekk télé xam nga xéwal yi yokk bu baax baax a baax di sant Abdoulaye Diop xaalis bu baax waaw gis nga ni mu ñu làmb yi yëkkati xaalis bu bëri jox ma aw ma ab Abdoulaye Diop xaalis jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax billaay ay 200 mille la ma jox chaque làmb te loolu xam ma tamit yombul ak jamono bi ni mu mel nii nii waaw maa ngi koy sant bu baax a baax di sant ñëpp daal suma ma limee dinaa jum waaw merci waay